mannequin c'est-à-dire comme les d'abord il faut que tu euh, tu aies le profil quoi mais profil comme parfois qui dañu naan mannequin bi dafa ñaaw mannequin bi dafa li. je me dis man parfois je me dis que euh, j'aime plus les mannequins que les mannequins beaux quoi ou mhm. belles mhm. nawul ne parce que dama ñaaw nak <laughs> mais man tay mannequin yo, mannequins, man suma euh, nit en tant que def j'aurais préféré jël ay mannequins yu ñaaw man personnellement ndax si la si ah, lañ may gëna gënël samay affaire Vous ngi comprendre je me euh, kérok ma ngi un faisa comme ni mu doon wax je euh, je m'en fiche je n'écoute pas des gens qui disent que je suis laide mhm. mais tay ji bu taxawé ci podium do gis lolu quoi faisa elle n'est pas laide mais elle est super belle parce qu'elle a une beauté sauvage lu nit ñi pas. xamoon beauté bob c'est très rare elle est spéciale tey jii moo tax ma ne la nit ñu ñun li ñuy gisee beauté tey jii ak mot ak beauté ni muy demee ci mode c'est un peu différent quoi